ko fay te la nga di ko fay te dara ci moom chantage ci digg dëkk bii defal ma ma defal la ni liggéey la parce que gàddu ak jooju ñu pat ak moom te mën boor bu nekk te a defal sa boppe lu nekk nañuy wax li jural li jur jógee fi dem Dubaay di def naka surut noonu lu jur porte-à-pote waaw porte-à-pote bii nañuy wax jàngoro ji fan la jógee kenn du ko digal kenn ndax du lu baax dama ñàkk gi moom it ci digg digg dëkk bi tam nañ wax dëgg réew mee toj ñàkk gi tar na daba ta boo amul kenn du la considéré ci lenn xale bu ci nekk nag toll ci xale xaw doomu tuuti sa nday ërtal la nga dugg dëkk bi wala nga gis ni ka karkala la dabaa bu bees bi war naa ko mën a am yaa ngi dégg bari na waaye nag la ñuy xoolee am